عليك صلاة الله ثم السلام فبرهام جد عاشق فيك وامق الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفاتيح ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بين مولahuma الرحمن salaamualeykum wa rahmatullahi wa nuyu sang yu tedd yi nekk ci ron mi yëpp sang yu góor yeeg sang yu jigéen yi sang yu mag yi ak sang yu ndaw yi di leen indil nuyoo Médina yëpp tàmbale ci imaam Cheikh Cissé imaam Mahi Cissé imaam Mouhamad Cissé ñoom ñëpp ñu ngi ànd ak yéen ci bésu tey bu tedd bi ànd ak yéen ci ñaan ànd ak yéen itam ne fiñ ñu jëm benn rek la mooy am tarangaay àddina am tarangaay àllaaxira boo xam ne dafay ànd ak jàmm fii ci àddina boo xam ne ñëpp dinañ ko yëg loolu bokk na ci nga xam ne gën nañ koo soxla ci suñu jamono bi rawatina nuyu bu baax baax Euh, monsieur le maire nuyu Omar Sarr nuyu Omar Jara ci seen dimbalante ñoom ñaar ba muñ àgg ci jotaay bi ba muñ àgg ci rafetaay bii nga xam ne ñu ngi koy gis ci mbaar mi rafetaay bii nga xam ne ñu ngi koy gis ci nit ñu tedd ñi toog ànd ak yar ànd ak yëkkatiku ànd ak kawe ànd ak mbaax ndax nit façonu personnalité bu nekk mi ngi ci ron mbaar mi ay boroom xam-xam a ngi fi ay homme de culture a ngi fii ay niti fi ay buur a ngi fi ay nit ñu kawe ñoom la yàlla dajale ci mbaar mi tey nitu nitu diine ngi fii waaye itam nitu daaraa ngi fi te nitu administration yi ñi ngi fi toog te li ci gën a neex ci ñoom ñëpp ñu ngi daj ci mbaar mi waaye ñoom ñëpp ñoo yem ñoo yemale seen bopp ñoom ñëpp ñoo bokk benn càkkutéef mooy yaru ci kanam yàlla ndax yàlla rek mooy def ba pare yaru ci kanamam ñaan ko dooleeku ci zahir ak ci baatin ñaan ko yëkkatiku ci zahir ak ci baatin ñaan ko dooleeku ci zahir ak ci baatin fii ci gomoon d'abord ak ci Kaolack yépp ak ci Sénégal yépp itam yal na ñu yàlla may yëkkatiku ak dooleeku yal na ñu yàlla may euh, am am am am ci biti ak am ci am am ci biir loolu yëpp yal na ñu ko yàlla may yal na ñu yàlla may suñ autor suñ euh, euh, attekat yu bees yi nga xam ne yàlla indil nañu leen ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal na yàlla taxawu leen yal na yàlla dëgëral leen yal yàlla leeral seen xol yàlla may leen jàmm yu yaatu ba nga xam ne liñ bëgg liggéey danañ ko mën a liggéey ak seen sago danañ ko mën a liggéey itam ak seen mbëggeel ne loolu lañ bëgg dañoo bëgg liggéey dañoo bëgg a defar dañoo bëgg sénégalais bu nekk yëg sénégalais yëg ne sénégalais la yëg mën a puukare woo senegal te loolu yëpp euh, ci seen liggéey ñoom yàlla mën na ko feeñal yàlla mën na ko cee feeñale yal yàlla feeñal barke ci seen liggéey yal yàlla feeñal barke ay gii nga xam ne ay a ko Sénégal yàlla na yàlla na ci yàlla génne barke jaarale ko ci ñoom mu monsieur le président de la république ak premier ministre am ak gouvernement am ak mbooleem ñoo xam ne ñu ngi jàppalanteeg moom pour liggéey Sénégal boo xam ne Sénégal bu bees la Sénégal boo xam ne Sénégal yëpp bëgg nañ koo gis yal na leen yàlla dimbali ñu def ko. Euh, ñu ngi daje fii tey ci ngoon ñun ñëpp euh, comme ni ma ko waxee façon nit ku nekkan fi nit ku nekkan fi. Euh, te yonent nee na amuñ fu ñuy daje mat fa ñeent fukki nit lu dut wàllu yu yàlla mi ngi ci biir wàllu yu yàlla fu mu nekk luñ fa ñaan yàlla yàlla dinañu ko may te mbooloo mi ëpp na ñeent fukki nit ëpp na sax defe naa téeméeri nit bon lu ëpp wàllu yu yàlla mi ngi toog ci mbooloo mi loolu yëpp yàlla daf na koo jàppandalal pour jàppandalal ñu suñ dund pour jàppandal ñu ay mayam ne waxtu wu nekk mu ngi taxaw pour joxe ko ci jamono boo xam ne dañ koy ñaan mbar meek tant beeg ñi fi daje ñëpp ñaan yàlla rek la ñaan yàlla du mooy tàll sa loxo rek waaye jëf ci boppam ñaan yàlla jëf bi ñu daje fii yépp ñu ngi ñaan yàlla yàlla boole suñuy xol ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla boole suñu kattan te tabarkeel ko ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla dimbale ñu bokk ci nit ñi nga xam ne dañuy dolli Sénégal te duñ ko wàññi dañuy yëkkati Sénégal te duñ ko suufeel yal nañu ko yàlla may ci barke nit ñu tedd ñi daje ci mbaar mi yépp yal nañu ko yàlla may itam ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doomu adama mooy mbootu yàlla ci kaw suuf mooy mbootu yàlla ci kaw suuf lu yàlla di wàcce mu jógee asamaan ci doomu adama rek la koy wàcce alxuraan ci moom la ko wàcce tawraat ci moom la ko wàccee yonent yi yépp itam ay doomu aadama rek lañ yónniwut ñu ay malaaka yónniwuñu ay jinne mais ay doom aadama ci ñun dañu yónni ngir won ñu nu doom aadama teddee ci moom tedd ci moom yàlla ba mu wax ne wala xat karram naa bani aadama nu mu teddee ci moom ba mu wax ne inna akramakum bon nga xam ne kër yi ma ngi fi waaye akram itam mi ngi fi te loolu yëpp yàlla def na ko ci biir doomu aadama yi ñu ngi ci seen nit ñu baaxee noonu ñu ci biir doomu aadama yi nit ñu kawee noonu ñu ngi ci biir doomu aadama yi te yàlla moo ko wàcceeb may ko doomu aadama yi bon nag li gën a war doomu aadama ci digganteem ak boppam ak digganteem ak leneen lu dul moom mooy mu rafetal wa ahsinu inna allaha yuhibbu almuhsinin rafetal leen ndax yàlla dafa bëgg dafa sopp nit ñi nga xam ne ñu ngi rafetal jëmee ci ñu dul ñoom rafetal jëmee ci sa mbokk rafetal jëmee ci sa dëkkandoo rafetal jëmee ci sa réew rafetal jëmee ci sa ay autorité sa euh, boroom dëkk sa sa sa sa gouverneur sa ministre de l'intérieur ba ci sa président de la république li la yàlla sant mooy nanga nga rafetal jëm ci ñoom rafetal nag mooy lépp loo xam ne ñooñu santaane nañ ko ne lii lañ bëgg mu doxee ñu sawar ñun ñëpp ci ànd ak ñoom ci def noonu nga xam ne noonu lañ ko bëggee ndax jàmm rek lañ bëgg pour Sénégal yiw rek lañ bëgg pour Sénégal bon ñaanal leen mooy ñaanal suñ bopp ñaanal leen itam ñaanal Sénégal itam mooy ñaanal leen ndax ci seen loxo ko yàlla teg te ku yàlla teg ci yow responsabilité yu yu yooyu ak nim diisee ak nim jafe nga nangu ko gàddu dëgg-dëgg wax na ne jàmbaar nga waaye fekk na itam tekk yelloo nga ko ndax boo ko yelloo wutoon yàlla du la ko may yàlla du la ko may loo ko yàlla maya nag nga xam itam ne sant yàlla moo la war mooy liggéey pour suma réew liggéey pour sama doomi réew ak fu ci nekk yàlla teral leen te ci jaaral la barke boobu ci seen loxo yal na leen ko yàlla defal doomu aadama mooy secret yàlla ci kaw suuf lu yàlla di indi ci lu baax ci doomu aadama la koy jaarale safaan itam ci doomu aadama la koy jaarale bon bu ko defee nag doomu aadama ci boppam digganteem ak boppam buy tànn lan la war a tànn la war a tànn ndax damay tànn pour def lu baax ndax damay tànn safaan su fekkee tànn nga pour lu baax yàlla nee na man maa ngi ànd ak yow ndax wa ahsinu inna allaha yuhibbu al muhsinin boo rafetalee yàlla nee man ma man maa ngi ànd ak yow ci sa rafetal googu boo defee safaan yàlla nee na sa digganteeg sa bopp la ah yaa ko yaa ko def yaa ko gàddu yaa koy def bon bokk na ci jullit ak euh, ak ñu bokk réew jotaay yu mel ni ñuy def defuñ ko pour defuñ ko pour àddina defuñ ko itam rek pour dañoo am jot rek daje waxtaan de déedéet mais liñ koy def mooy nit dafay seet moromu itam nit dafay seet jokkoo ak moromu nitam dafay seet baax ak digganteeg mbokkam nit dafay seet naka lay dajalee te bañ nit dafay seet naka lay yokkee te bañ te loolu yëpp mën na bàyyi ko ci jotaay yi xam yooyu yëpp mën na bàyyi ci jotaay yi ndax ñi ko toog seq ko dëgg-dëgg duñ ay nit ñoo xam ne nit ñu ndaw lañ ndax tur yi ma fi dégg yëpp ak pal yi ma fi dégg yëpp ku ne xam ne ne nit ñu kawe lañ nit ñu kawe nag jàngal leen moo gën a yomb ak ñoom ñu jàngal seen bopp moo gën a yomb keneen bi ñëw ne da leen di jàngal ndax buñ gisee lii rek xam nañ ne seen peuple alhamdulilah jàmma ngi fi ndax jàmm moo mën a dajale mbooloo mi depuis ca suba ba léegi ñu ngi fi toog loolu jàmm rek moo ko mën a maye. donc bon peuple bi bëgg na jàmm bon ku leen ci dimbale yaa ngi leen di dimbale ci loo xam ne ci loolu la bëgg ku fi nekk itam da nga xam ne peuple bi ñu dëkk peuple bu bëgg liggéey la ndax lii nga gis ni ci mbaar mi ak lamp yeeg ak yoon beeg nangam ak nangam loolu yëpp da ngay gis ne liggéey seen liggéey la ñoom moo tax lii yëpp am ndax bu fekkoon ne gomoon dafa toog rek bëgg naa courant bëgg naa courant dem ci jumaa ja di ñaan rek yàlla ji indil ñu courant ak courant bi du ñëw ah waaye ala fokk yow yaay jóg nag takk seen ndigg dem ci jotaay yi nga xam dem ci ruq yi nga xam ne fa la jot kóllëre yi fa la euh, courant yi di bàyyee ko nga waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo ko seq wax leen gomoon nii la mel nanga mag nanga mag wax leen ni gomoon mel na yëpp ak ni muy màggee ak ni muy yëkkati nga xam ne bon soxla nañ courant bu ko defee courant mën naa ñëw ah yàlla mën na ko indi wax nga comme ni nga waxee tali bi incha allah gomoon dëkk bu dund la bu yëkkatiku la bu am école la bu am jumaa la am école arabe am école français xale yi ma dégg ñu làkk arabe fii te ñoom ñëpp gomoon lañ dëkk dëgg dëgg ma daf ma neex ci sama xol ndax li tax mu neex ma bokk naa ci ñi leen jàngal ndax ñu ngi jàngee ci mahad islami Ibrahima Ndiaye kontaan na trop te xale bi toogee di def ay xasida di jàng parce que ci mahad alhaji ab alhaji Abdoulaye la jaaree ma gis itam ku jóg taxaw maire bi ku jóg rek foog nga bala ngaa dugg ci sa wax di dugal ñaari baati arab ñetti baati arab door a dugg ci olof wala nga dugg ci français loolu yëpp dafay woon peuple boo xam ne mi ngi dund mi ngi dund te yaakaar fu muy jëlee dund fan la yaakaar itam ne dund kese kese doyut doomu aadama waaye dund gu ànd ak maanaa dund gu ànd ak dolli dund gu ànd ak yëkkatiku foofu nag nit dina ko am ci liggéeyam waaye gannaaw boo xamee ne sukkandiku na ci yàlla mi nga xam ne mu ngi ñuy xool duñu wax ne antumul fuqaraaw ay miskin ay pauvre ngeen amuleen dara hmm? wallahu huwa alxaniyu alxamid bu ko defee dellu foofa sukkandiku fa liggéey ndax xan yoo xamid boobu itam mën a feeñee ci yow ak turam woowu bu ko defee nga gis ne yëpp a ngi dolleeku yëpp a ngi yokku comme ni ngeen wax ne gisee ngeen ko ci gomoon gomoon ne yëpp a ngi dolleeku yëpp a ngi yokku parce que taxaw ngeen ci kanam yàlla naxnu lfuqaraau wa anta alganiyu te yow la ñuy oo yow ganiyu nga ñëw ci ñun bon euh, euh, euh, udoo nii astajib lakum jeex oo ngeen yàlla yàlla uyu na leen hmm? yaakaar ngeen yàlla yàlla dëggal na leen loolu yëpp lu ko indi lu tax ñu am ko parce que mbooloo yi ñuy daje ku nekk di xam si soxlaay moroom di nga xam ne soxla bu itte la te soxla bi du sama soxla man kenn mais soxla population bi la soxla nit ñi la ah tali bu baax nit ñëpp a ko soxla teen ñëpp a ko soxla Cheikh Abdourahman Karim yóbbu na ma ñu doon dañ ci benn tali ma ne ko tali bi yéen ko fii la nekk waaye moomu leen ko ah euh, Sénégal ci boppam moomu ko mais doomu aadama ko moom fu mu mënti bàyyee ndax doomu aadama bu fay jaar kenn du ko aaye ah bon ñëpp ko moom kon koo xam ne dangay liggéey pour ñëpp da ngay liggéey pour ñëpp doo lekku ñëpp pour barke yàlla nee na maa ngi lay xool ci sama bët maa ngi lay xool ak suma ndimbal maa ngi lay xool ak suma dëgëral la li nga bugg yëpp pour amal ko te njëriñu doomu aadama moo tax nga bëgg koo amal xamal ne man yàlla maa ngi ànd ak yow parce que yonent nee na yàlla nee na ki ma gën a bëgg ci samay jaam mooy ki ëpp njëriñ ci samay jaam ki ëpp njëriñ samay jaam yonent mu ne yàlla nee na kooku laa gën a bëgg ci samay jaam jaam yooyu nag bu boobaa utalu ko ruq bu mu dëkk utalu ko ndax ci lislaam la dëkk wala ci christianisme la dëkk walla juif la wala païen la yoonam nekkul sama jaam rek la jaam sama jaam la maa ko moom nangul na ma maa ko moom nangulu ma maa ko moom bon nag gannaaw yow kuñ moom rek nga dañuy def ci yow bon nag nangu toroxlu taxaw nele naan ko ana al faqir wa anta al wa ana xaajati ah, yaa ngi ma bindalee ay aajo yoo xam ne mënuma koo jeexal mënuma koo fajal sama bopp ndax bu so aajo bu soxla bu faju rek beneen taxaw ne maa ngi nii aajo bu faju rek beneen taxaw ne maa ngi nii aajo bu faju rek taxaw ne maa ngi nii du jeex du xaaj bu boobaa yow doomu adama attana loolu yëpp kan nga attan istain billahi alganiyi alhamid alkarim antum alfuqaraau wa anna wallahu huwa alganiyu ba pare teg ci alhamid dafay def loo xam ne dañ ko sante moo tax moom mooy mooy aji am ji nga xam ne kuñ sant la ndax lim am yëpp mu ngi koy def pour doomu adama màggal doomu adama kaweel ko yëkkati ko moo tax képp koo xam ne dafay dox ci luy yëkkati doomu adama yaa ngi dox ci li nga xam ne moo tax yàlla bind la moom la yàlla bëgg nga def ko ci sa diggante ak say mbokk wax na innamal muminuuna ixwatun fa aslihu na axawaykum yéen jullit ñëpp ay mbokk ngeen rafetal leen jëmee ci seen diggante waaye wax na itam ci beneen laaya ne yéen nit ñëpp samay jaam ngeen dimbalante leen ci seen biir dimbalante leen ci seen biir bon kii yéefar la du ma du ma dimbalanteeg moom loolu amut li am mooy nit ak nit dimbalante moo war a jaar seen diggante su ko defee nag ku nekk nag ruq ba nga xam ne fa nga dëkk sa ruq la yaa fa dëkk dafa gën a baax moom nga fa bëgg a am ci ruqul islaam laa dëkk su ma mbokkul lislaam moo ma gën a jege sama mbokkul islaam moo ma gën a jege moom laa gën a mën a eh, joxanteel waaye du tere keneen keneen itam sama mbokk nit la lu nit soxla ci nit comme nit loolu itam ñun ñëpp mën nañ cee ànd dimbaleen teneen ci rawatina nag boo xamee ne benn gox lañ dëkk boo xam ne waa gox bi yëpp yëg nañ ne gox bi am na lum soxla te kenn nit mënu koo def ñaari nit munu koo def autorité moo ko mën a def su ko defee autorité boobu nag li war si digganteeg moom mooy nangul ko te doo ko indil ay jafe-jafe ci liggéeyam doo ko indil loo xam ne dafay jaarale sa diggante ak moom ay ñagas-ñagas yoo xam ne jaru ko ndax autorité kenn du xeex ak moom boo amee xel autorité moom kenn du xeex ak moom topp ko ci li muy digle moom itam mu topp la ci li nga bëgg mu topp la ci li nga bëgg euh, te loolu ku ne xam na ne moo gën a dimbale nit pour mu àgg ci lim bëgg a réaliser fii ci àddinaam amul nit ku géntul bëgg a def dara ci àddina bàyyi ko ku nekk bëgg na ko ku bëgg ku nekk nga koy gént waaye du ci loxo ku nekk na ko la yàlla di jaarale yàlla am na ay loxo yoo xam ne ci ñoom la koy jaarale am na ay nit ñoo xam ne ci ñoom la koy jaarale waaye daf koo jaarale ci ñoom rek waaye moomuñ ko waaye moomuñ ko parce que moom moom moomeelu yàlla la jaar na la ko ci loxo jaamam bi ne ko àggale ko ci seba jaam yi nga àggali ko àggali boo xam ne àggal bu kawe la daa na waaye ngi waxtaan ak man ne ma li ma gën a neex ci Cheikh Ibrahima radiallahu anhu bi mu amee njëriñ boo xam ne njëriñ bu njëriñ la emalewu ko Sénégal rek emalewu ko ci ay ñaseenam rek mais daf ko tasare ci àddina bi yëpp àddina bi yëpp itam xam ne lii lu baax la ànd ak moom ñu ànd ceeg moom ñu ànd ceeg moom taxul Cheikh Ibrahima moomul jaami yàlla yi kenn la ci jaami yàlla yi Cheikh Ibrahima amul kaddu kun fayakun yàlla moo ko am ah yàlla moo ko am di lee ñoom suufiyanke yi comme ñu ko waa ji waxee ci waxam léegi dinañuy àgg ci set ak sell ak kawe foo xam ne moment yooyu nga xam ne àgg nañ ci di dund di wax waxtu woowu ba ñuy wax waxatuñ ñoom yàlla mooy wax ci seen làmmiñ yàlla mooy wax ci seen làmmiñ Cheikh Baye bu àggee àgg àgg àgg ba tooxiitu maqaama kun fayakun foofa fa mu àgg ba ko fa wax foofa boo seetee Cheikh Ibrahima doo ko fa fekk ah, yàlla rek ngay fekk ne mooy wax ci làmmiñam tooxiitu maqaama kun fayakun rek kon nag kum ko waxloo ci làmmiñam nga xam ne moment koy waxloo ci làmmiñam boo ko wax boo waxee kun fayakun mu am parce que du yow yàlla man yàlla moom nga xam ne moom lañ soxla ñun ñëpp moo ñu dajale ci mbaar mi euh, nemmeeku wante ngir yàlla zi ne dañuy wax ziyaare maaxi waaye dëgg dëgg du ziyaare maaxi waaye ziyaare jullit ci moromu jullitam la ziyaare nemmeeku wante nit ñëpp ñi fi daje ñëpp tey ku ci dem di nga yóbbaale benn leçon di nga yóbbaale dara di nga yóbbaale xam gomoon ndax jàngale nañ ko fi wax nañu gomoon nu mu nekkoon fu mu bàyyeekoo fu mu àgg ak lu mu bëgg ak lu mu yaakaar euh, euh, administration xam nañ ko xam nañu waa gomoon li ñu yaakaar ak li ñu bëgg sëriñ si nga xam ne itam ñoom itam dalal seen loxo ñaan rek lañ dégg nañ ne waa gomoon loolu lañ bëgg ñoom itam danañ leen ci ñaanal yàlla bu ko defee nag mu des nag nit ñeeg seen pexe yeeg bunt yi nga xam ne ci dañuy jaar pour réaliser loolu loolu yépp itam boo demee tey nit ñi toog fii jël nañ ci ay leçon yoo xam ne bu ëllëgee bu waa gomoon ñëwee ci ñoom di ut si danga xam ne ñii utuñ pour seen bopp mais dañuy ut pour gomoon te gomoon ñëpp ko bokk waa gomoon ñi fi dëkk rek moomuñ ko ñëpp ko bokk parce que ñi fi ñëw tey di fi jëriñu ñu ci bëri dëkkuñ gomoon waaye terew jëm gi danañ fi jëriñ dañ fi gis ay njëriñ yoo xam ne danañ fi yóbbaale ay njëriñ yoo xam ne ay mbokk yu yu gëj a gisante gisante nañ fi tey ay xarit yu gëj a gisante gisante nañ fi tey ah ak euh, yendu bu neex bi ci tànt bu rafet bi ñun ñëpp ñu xam ne doomu aadamam mun na dimbale moroomu doomu aadamam parce que wax na ne tànt bi Abdourahman Karim moo ko fi def pour pourquoi mu du ko def ah parce que lii war diggante doomu aadama ak doomu aadama loolu la xam mooy ne dimbalante ci loo xam ne nit def ciy doole ko ci zahir ak ci baatin donc loolu du teyal def ci sama alal ak fu mën ci nekk parce que defuma ko pour nit ñi mais dama koy def pour yàlla mi nga xam ne moo ma sant ne taawanu alal birri wa taqwa taawanu alal birri wa taqwa su ko defee bu boobaa kenn méngoowu la ku yàlla yàlla moo lay méngoo yàlla moo lay may yàlla moo lay defaral dëgg de yàlla gisuñ ko mu wàcc di ñu defaral waaye yàlla moo lay tàggatal yoo xam ne yow xaaroo ko woon mu ñëw la indi la mbett boo xam ne danga nga ciy gisee loo xam ne danga nga foogoon ne lii mënta am waaye amut lu mënta am waaye mi ngi dépendre ci namm namm doomu aadama li nga namm bëgg ko loolu la yàlla di defar ah waa gomoon namm nañ seen dëkk bëgg nañ seen dëkk namm nañ ko bëgg nañ mu yëkkatiku bëgg nañ mu dolleeku bëgg nañ mu am courant bañ koy def kenn ku dëkk gomoon amut pexe bu mu defee loolu amut pexe bu mu defee loolu amut kattan bu mu defee loolu waaye bañ ko bëggee mu nekk dëgg ci ñoom rek dafa am parce que loolu mooy dama dama li nga bëgg bu dëggoo ci yow rek ala fokk yàlla dina la wa dina la yen kiiwal ay xam-xam ak yoonu yoo xam ne boo ca jaaree li nga bëgg di ko am ah loolu dépendre ci jàng naa ak jànguma dépendre ci xam-xam naa aw ma xam-xam ñu ngi dépendre ci volonté ak bëgg-bëggi nit ndax boo bëggee am boo bëggee am dogu bu wér sëkk sa digganteeg yàlla bu boobaa yow yàlla moo lay yenkiwal bunt yi nga xam ne ci ngay jaar pour di nga bëgg yëpp mu réalisé wu li nga bëgg yëpp mu réalisé te loolu yëpp itam daje ci mbooloo yu mel nii dinañ ko dina koy dina koy maye daje ci mbooloo yu mel nii dina tax nit ñi xamante daje ci mbooloo yu mel nii dina tax nit ñi dégg soxlaay nit ñi daje ci mbooloo yu mel nii dina tax itam ay xaritoo amee fi ay jokkalante ci yiw amee fii donc bon suñ jotaay yi du jotaayu jotaayu jotaayu jàngale la jotaayu université la jotaayu mbooloo maa ngi daje ñuy waxtaan mbooloo maa ngi jokkalante mbooloo maa ngi waxtaan ñu ngi xamante ñu ngi déggante ku nekk ngi xam sa sa morom fu mu toll ku nekk ngi xam sa morom lan la yaakaar ci biir xolam da gis ne benn nit bu gëm yàlla bu yaakaar yàlla mooy wax ak benn nit boo xam ne bu gëm yàlla bu yaakaar yàlla la bu ko defee ñu jaarale yàlla seen diggante liggéey bu waa amut lu ci yàlla mënta génne yàlla daf ciy génne lu nekk yàlla def la ciy génne lu nekk waaye nag boo tëjoo boo tëjoo ci sa bopp dafay jafe tëjoo ci sa bopp jafe na lool euh, bala nga koo xam nga tëdd guddi sa néeg nelawoo nelawoo nga fanaan yow kenn ak sa bopp ak sa xel dangay bëgg génn daw néeg bi ah ndax yi ngay waxtaana doo ko ñemee dangay bugg a ooku ñëw wéttali la nga waxtaan waaye yow ak sa bopp kese kese ba bër set man rek te nelawuma yombul lu jafe la euh, ku defee itam nag teg ci euh, gomoon euh, Omar Sarr ak Omar Thiaré xam naa leen ñoom ñëpp ñaar parce que daanaka maag ñoom ñoo ànd sampandoo yi samp yëpp ah yi samp yi samp fii ak yi samp euh, mànd ak yi samp mànd yëpp amut ci boo xam ne lu dul maag ñoom ñoo ko daan ànd di ci góor góor ci di ci def waaye nag luñ góorgóorlu luñ def itam yàlla mooy exécuté ñun ay pexe rek lañu am ak suñu yaakaar mais li ci des nag yàlla moo koy àggale bu yàlla àggalee nii nga gërëm ne nii la ko yàlla aggalee yàlla yokk la su yàlla àggalee nii mu bëgg àggalee ko nga ne ko yàlla du ko àggalee yaa ngi am problème parce que yàlla ngay waxat te moom faalewu la ndax nee na la yow faq miskin rek nga doo dara miskin rek nga euh, miskin nag ki ngay xeexal moom jàppewu la nee lu mooy benn miskin rek la antumul fuqara yéex na mënu leen dara xamu leen dara ah wallahu yaalamu wa antum la taalamuun man yàlla man rek ma xam yéen xamu leen dara xam-xam lu mu bëri bari bëri ci doomu aadama dendale ko xam-xamu yàlla da ngay gis ne xam-xam ne ko fa sax xam di xam nag ànd doom doomu aadama yi waxtu wu nekk mu ngi leen di yankiiwal mu ngi leen di yankiiwal loo xam ne yankiwal bokkut ak wax yu ah ku nekk yaa ngi am ay solution yoo xam ne xamoo fu mu la bàyyee ko am na ay ay yoo xam ne ay solution yoo xam ne ci nelaw nga koy gisee nelaw ah gént yàlla woon la defal nangam defal nangam nga xëy rek def loola sa ay problème sotteeku donc bon yàlla ak jaamam ñu nekkee yàlla moo ko xam yàlla moo ko tànn yàlla nañu boole ci jaam yi nga xam ne tànn nañu pour lu baax pour def lu baax ak pour yëkkatiku jëm fu baax euh, yàlla bu ñu yàlla nattoo wàññeeku yàlla nañu yàlla dimbale dooleeku yàlla wax ne fa amal insaanu ida mabtalaahu rabbuhu fa akramahu wa naamahu fa yaqulu rabbi akramani ah man yàlla moom ah, man yàlla moom wa amma ida mabtalaahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanani moom jàmbatu rek la dama dama jàmbatu rek bu neexee mu jàmbatu bu naqaree mu jàmbatu ah décision finale boo xam ne moo koy jël fa fa akramahu wa naama fa yaqulu rabbi akramani am na ñoo xam ne buñu àggee foofu sax yàlla rabbi akramani dañ naan innama faaltuhu an an amri man man naa ko defal sama bopp ah ko defee nag boobu la doomu adama di dugg ci bew boobu la doomu aadama di dugg ci réer goo xam ne dara mënu koo jubbanti lu dul nam na ma yàlla mën naa ñëw jubbanti ko tegaat ko ci kaw yoon waaye euh, euh, man maa ko am samay pexe man maa ko am ci sama xam-xam man maa ko am ci sama tëral loolu yépp seytaane yuy nax doomu aadama rek lañ seytaane yuy naxanteeg doomu aadama rek lañ waaye doomu aadama bu set bu set bu wéet dana xam ne man kese mënuma dara ala foog ma am ak ndimbal ndimbal googu ndax diw moom ma koy defal ndax diw moo ma koy defal ndax diw moo ma koy defal d'accord yàlla mën naa tàggat ñooñu ñëw defal la ko waaye yàlla rek moo la koy defal yàlla nag mën na laa tàggatal ñoo xam ne ñoo lay indil say soxla ñoo lay indil say ut ut ñoo lay indil sa bëgg-bëgg loolu yëpp yàlla mën na koo defal jaamam ci nim ko neexee inna allaha yafalu ma yasha inna allaha yafalu ma yasha yàlla mooy def lu ko neex yàlla mooy defal jaamam lu ko neex yàlla nañu yàlla defal te na nga xam ne na la kawee yàlla nañu yàlla defal te na nga xam ne na la baaxee déglu ngeen fii bala ñoo ñëw ay nit ñu doon waxtaan ak yéen ay conférencier liñ liñ xam ci lu baax liñ jàng yépp tàng nañ ci lañ yaakaar ne moo baax ñu war koo jottali nit ñi ñu jottali leen ko ci façon boo xam ne nit ñi nangu nañu ko waaye la nga xam ne nag xam nañ ne lii jàng nañ ko xam-xam la d'accord waaye lii dëppwut ak jotaay bii ñu tëral ko fële loolu itam yëpp ay mbooti yàlla la bu yàlla di defar na muy defare ah am na yoo xam ne mën nañoo toog waxtaan tiital nit ñi kenn du kenn du ñemee nelaw ndax tiit tiit tiit te yàlla santaane wut loolu yàlla dafa la santaane waxal ak sama jàmbi bi xadrata lim kattan lim ah waaye bu ko waxtaanee loo xam ne attanu ko yàqal ko ay nelawam ba pare yow dem di nelaw loolu loolu baaxul loolu ah waxtaanal ak nit ñi seen kemb kattan ak seen kemb xam-xam loo xam ne danañ ci gisee seen bopp te dinañ xam ne lii njëriñ ngi ci waaye itam waar mi ngi ci waa fàttali mi ngi ci waaye directement rek safara safara yóbbu nit ñi safara yóbbu nit ñi alja te dara nekkul sa loxo aljanna nekkul sa loxo safara nekkul ci sa loxo mu ngi ci loxo yàlla ka yàlla di yóbbu ku nekk fa yàlla di yóbbu tànnal na la ko ba pare ah kenn du ko mucc kenn du ko faj ndax ah, yonent nee na nit dina jaamu yàlla jaamu yàlla jaamu yàlla dem aljanna ba digganteem ak aljanna quarante pas moo des mu àgg mu dem safara mu dem safara nit dinay mooy yàlla mooy yàlla mooy yàlla ba nga xam ne digganteem ak safara quarante pas la yàlla yóbbu ko aljanna dina ko loolu loolu nu muy amee loolu nu muy amee mu ne mi ngi amee ci inna alladina sabaqat lahum minna alxusna ulaayika anhaa muwaaduun ah nga xam ne sama teraanga dafa jiitu ci ñoom yooyu kenn mënu leen a yóbbu safara hmm? moo tax nit dana nekk ci ay caaxaanam caaxaanam caaxaanam caaxaanam ba ñun ñu àtte ko ne kii nit safara la ah waaye bu demee ba digganteem ak safara quarante pas des ci yàlla ëlbatiku ci saas mu nekk nit koo xam ne jamono moo ci gën comme euh, benn wàllu yàlla ci ñi am tasarruf ci lañ bokk ci la bokk ñi nga xam ne dem nañ ba àgg ci darajaay tasarruf loolu génn na sama xel waaye wàllu yow boobu lu mu doon liggéey nu mu commencé woon dagg nit ñi ci yoon yi daggat borom alal yi mu leen dagg di nangu seen alal dogkat yoon yoon hmm? agresseur eh du dagg yoon yi rek dinañ ko àllal nit ñi loolu daan liggéey ñii gàddu kalpe ñii dagg ñii dagg jigéen ñi di leen ci ñooñ la bokkoon ci ñooñ la bokkoon hmm? ba benn bés mu jàpp benn jigéen bëgg ko def yooyu muy def mu ne ko jigéen ji ne ko est-ce que doo ragal yàlla bëgg boole boole ci sa bopp boole sa bopp ci ñi nga xam ne yàlla wax ne na sabaqat lahum min al-husna est-ce que bëggoo bokk ci ñooñu mu ne ko loolu nag laa ko mën a amee mu ne ko bunt yàlla yaa ngi ubbeeku tuubal ci li nga nekk rek dem ci yàlla boo tuubee dem ci yàlla rek yàlla dina la baal dina la faas waa ji waa ji mel ni léegi léegi léegi la alxuraan wàcc ci moom léegi léegi léegi yonente gi nii di wax ak moom moo dal di summeeku ci lim nekkoon yépp dem di uti ko teg ci kaw yoon bu ko jubal ba yàlla woon ko benn saalixu boo xam ne moo doon xut bu zamaani yi moom la yàlla dénk jamono yàlla sànni ko ci ron tànk googu bi mu waa ji ne ko yow laa doon xaar parce que man sama dund jeex na sama xalifa laa doon xaar yow la yàlla yónni pour nga nekk sama xalifa seetal ni yàlla di mayee ah seetal ni ah? ku ci ku ci mën dara moomu ju nekk xalifa euh, moomu ju nekk xalifa yàlla ci kaw suuf lépp loo xam ne euh, mooy dogal ci jamono boobu moom mooy saaxibu alkalimatil awliya eh, dafa am ci taarix diggante yàlla ak jaamam yàlla rek a fa nekk keneen xaju fa boo fay dug boo fay dugg da dugal sa bopp foo xajut rek ah bàyyil nit ñi ak bàyyil jaami yàlla yi ak yàlla yow li nga mën àndal ak jaami yàlla yi ngeen di ñaan yàlla àndal ak jaami yàlla di julli àndal ak jaami yàlla yi ngeen di oor àndal ak jaam yàlla yi di jàngal xuraan àndal ak jaam yàlla yi bu jaal bu jaam yàlla yi tàllalee seen loxo di ñaan nga tàllal sa loxo ni ñoom di ñaanandoo dëgg la am na ay nit ñoo xam ne yàlla jagleel na leen loo xam ne jagleelu ko ñëpp ah ku nekk ak ni la yàlla mayee yàlla may na ay nit ñoo xam ne ñeme nañoo àgg ci daraja comme ni ma leen ko waxee sànq darajaay kun fayakoon ah waaye boobaa du ñoom Hmm? te jëllin min te jëlli yaatillaahi rek la waaye yoo xam nga ne jàmbuy dee rek nga hmm? xam nga ci sa bopp ne jàmbuy dee rek nga waaye nag yàlla teralee na la teraanga yoo xam ne te yàlla ko moom yàlla am teraanga te kenn du ko wax lu tax ngay teral sa jàmm kenn kenn amul ci droit parce parce que doo ko gis sax pour di wax ak moom benn euh, euh, naari gànnaar àddina ko ci xaare ñuy jàng sëñ àddina ko yow damay na damay tudd yaayam mu ne ko doo ko gis <laughs> doo ko sa wax ji yëpp dafay ñaaw rek mais li ngay wax doo gis suma yaay doo koy gisee dee na nu ci suuf soppeeku na c'est fini doo ko gis da ngay ñaawal sa làmmiñ rek ak wone na yow amoo yaay alors su ko defee nag il faut doomu aadama xam ne yàlla ak jaamam ñoo fi nekk ni neex yàlla noonu lay nekk ak jaamam dina nekk ak moom quelquefois di ko nattu nattu yu méttee métti dina nekk quelquefois mu def ko ba ba muy foog ne mooy buuru jamono boobu te loolu yépp jaam yaa ngi ciy jaar waaye loo ci jaaree yàlla nee na ida radita an qadaa'i wa qadari adxaltuka jannati boo gërëmee sama atte boo gërëmee sama dogal ma dugal la aljanna waaye bu la yàlla nattoo ngay jàmbatu di di di ut ndimbal ci kudut yàlla da ngay tardel sa bopp ndax doo gis ku la dimbale ah, nit boppam rek la gën a la gën a ittewoo ci keneen hmm? dudul ñi nga xam ne yàlla boole na leen ñu gëm yàlla yàlla boole na leen ci yàlla yàlla boole na leen ci yàlla yàlla ak leen di dimbale ci yàlla yàlla ak leen di xamal ci yàlla nit ñooñu ñooy tànneef yi nga xam ne yàlla wax na ci alxuraan ci ñoom ne summa awrasna alkitaaba alladina stafayna min ibadina maa leen tànn man maa leen tànn humul mustafuuna al samay tànneef lañ yoo xam ne man maa leen tànn gënal leen ci seen kaw yàlla ko wax te mu koy def te ñu ngi koy gis ah summa awrasna alkitaaba alladina stafayna min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi fa minhum zalimun li nafsihi koo xam ne li ma ko teral teral yépp moom moom ci moom ci ay caaxaan ci ay lu koy lu koy lor rek ci lay dox wa minhum muqtasidun am ñoo xam ne voilà tey ñu def ëllëg ñu bàyyi ay ëllëg ñu bàyyi wa minhum saabiqun bil xayraat yi lu lu mu leen wax ñetti ñoo ñëpp ah jannaatu adnin yadxuluunaha ñoom ñëpp ak janna laa leen di yóbbu yuhallawna fiha min asaawira min zahabin te seetal fi mu tàmbalee laaye ji fa minhum zalimun li nafsihi seetal nit koo xam ne dafay tooñ boppam nit dafay tooñ boppam tooñ boppam tooñ boppam ba mujj moom dafay jéppi boppam ba mujj dootu teg sax boppam nit hmm? mais bu boobaa itam yàlla nga koy woo da ko ñëwal boo ñëwee di nga fi fekk boroom boo xam ne borom bu am yërmande la borom bu bëgg bu bëri bare la donc bon yàlla bàyyiwut nit boppam yàlla mi ngi téye nit di ànd ak moom ci waxtu wu nekk di ko ñemeloo di ko encouragé nit feeg deewul rek perte ah, bu dee nag jeex na waaye nag feeg deegoo rek perte goo yonent nee na sallallahu alayhi jant bi fenkul tukkee xarfu ñaan yàlla mu nangu ko ñu ngi am yaakaar waaye bés bu ñu gisee nag jant bi jógee na xarfu fekkee naqar fu jëm penku mu ne boobaa nag buntu ñaan tëj nañ ko kuy ñaanati duñ la nangul sa ñaan hmm? kuy ñaanati duñ la nangul sa ñaan wala koo xam ne dem nga ba nga xam ne sa xalquum àgg na ci sa prox yaa ngi de dee dee dee dee dee ba déggee ak si sa prox nga ne da ngay tuub yonent na ah ah tuub boobu kenn dootu ko nangooti ah waaye waxtu wi nga mën a cëpp cëppi di di di di di di yëpp mu ne waxtu waxtu wu yaatu la doomu adama ci am na lu mu jéggaloo boromam pour yàlla jéggal ko bon doomu adama boromam la am borom bi itam jaam bi la am parce que moo ko moom hmm? te ñoom ñaar nag relation dafa war a jaar seen diggante relation bi wax na nu muy demee nee man maa bind lu ma neex maa bind lu ma neex lu am rek mën naa ko amal waaye nag dafa am loo xam ne maa ko bind te bëgguma ko dafa am laa xam ne maa ko bind te bëgguma ko wala yarda li ibadihi al kufra wala yarda li ibadihi al kufra ah eh, bëgg bon na lu bind te bëggu ko na lu mu bëggu ko ah, bokk na ci kéefër hmm? mu ne kéefër moom kéefër moom lu mu mënti def mënta àgg ci ngërmande yàlla ci yàlla gërëm ko ah jullit nag moom voilà del daanoo ko jóg del daanoo ko dëkk luñ daanee ko jóg ah yàlla yaa ibadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah yow mi dem ba nga xam ne njuumte yi dajaloo na ci sa bopp ba nga mujj ragal sa bopp yàlla ne la bul naagu laa tey ësu min rahmatillah lan inna allaha yaxfiru dunuba jamian innahu huwa alxafuru rahim yàlla dafay jéggale bàkkaat yépp ah te yàlla itam borom yërmande la nooy àggee foofa nag mu ne la wa anibu ila rabbikum wa anibu ila rabbikum bu ngeen delloo rek yàlla baal leen waaye boo fi nekkee nag ne bon xas na yàqu na yàqu na jeex na non yàlla ne la bul waxee nu laa tey asu min rawxillah innahu laa yey asu min rawxillahi illa alqawmu alkaafiruun bul naagu bul naagu ci yërmande yàlla bul naagu ci mbaaxi yàlla waxtu wu nekk nag mbaaxu yàlla ak yërmande yàlla teew teew ci yow teewaay boo xam ne mën naa muur say yuumte say yuumte waaye nag su fekkee euh, da yaakaar ne am nga beneen bunt bu dul teewlu yàlla ci sa xol doo def rek da koy perte hmm? yal yàlla musal ci perte euh, gërëm waa Gomone yi ngeen ma tuddee yépp teranga seen teraanga rek la yéen a baax rek yenn yiw rek yenn yëkkatiku rek yéen a bëgg lu baax rek waaye li ngeen ma tuddee yépp dëgg-dëgg damay wax ne man gisuma maaxi man sama bopp gisuma maaxi sax ba war koo solal mbubb mu rafet ah ba war koo solal mbubb mu rafet ba war koo solal dàll yu rafet ba war koo sol utal toogukaay boo xam ne mais vraiment gisuma gisuma maaxi bu ko jaar ah bon nag bu yàlla mayee ma jaral leen ci seen ngeen mën a tuddee benn ngoon tuddee ma ko dëgg-dëgg loolu teraanga yàlla la boo xam ne leen na ko suñu diggante yal nañu ko yàlla jëriñ fii ci àddina yal ñu ko yàlla jëriñ ëllëg ci àllaaxira euh, lu ma bëgg a wax pour sant leen rek tuuti na parce que yëg nit passé wut fii yëg nit passé wut lii ah. yëg am teranga passé wut lii ah, te loolu yëpp defoo ko lu sàkku jëmme yàlla ak ngërmande yàlla moo tax ngeen def ko bon ñu leen ñu ngi ñaan yàlla bu baax a baax yal nañu yàlla may ngërmandeem yal nañu yàlla may ngërmandeem yal nañu yàlla may yërmandeem amuñ kàttan buñ ko utee waaye yërmande yàlla moom lu mu ànd rek ah mu mu mu muy noonu kon yal nañu yàlla yërëm suñuy jëf yal na ko yàlla yërëm ah, yal na ko yàlla gërëm suñuy njuumte yal na ko yàlla dindi yal nañu ko yàlla eh, eh, eh, dindil ah suñu yaakaar yi yaakaar yi am pour ne mën nañoo dolli mën nañoo tabax mën nañoo yokk mën na nañoo jëriñ future génération bii di ñëw si mën nañ leen a jëriñ ba dañoo agsi mën nañ leen a préparer ba agsi mën nañ leen dëkkal bala ñu ak ngeen di xeex ci loolu amul benn sikk ne waxtu woowu ngeen di xeex la yàlla ngeen di dimbandikoo yàlla ngeen di liggéeyal ci jaamam yi nga xam ne ñëwagul kon donc ala fokk yàlla dina ko nangu yàlla dina nangu seen liggéey yàlla dina nangu itam seen i ñaan yàlla dina barkeel seen liggéey yàlla defal leen ko defal ko képp koo xam ne mu ngi góorlu pour xelaat pour ëllëg nit fekk fi njëriñ boo xam ne daf ko fee daf ko fee fekk njëriñ nag la fokk mu sukkandiku ci liggéey liggéey ku nekk la nga nekk yàlla mën loola ko muy liggéey ko xeeb liggéey ko liggéey liggéey ko parce que barke yàlla xamoo fu mu bàyyee ko am na nit koo xam ne ci Amérique latine fàtte naa dëkkam sirancekati daal la woon ci mbedd sirancekati daal la woon ci mbedd mais mu moo mujj nekk président de la république bu réew mooma ah moo mujj nekk président de la république bu réew mooma euh, maa ngi dégg Erdogan mu ngi wax ne population bi mais bu ngeen ma bañee rek ma dellu ci mbedd mi di jaaye xaal ah comme ne ma daan jaayee xaal xaal laa doon jaay waaye donc bon doomu adama yàlla denc mi mi ngi ci mbóoti yàlla waaye feeñu waayam yépp du foofu la ko yàlla denc foo ko yàlla di denc dina koo génneel ah yàlla nañu génnee foo xam ne danañ ko ñeme yal na ñu génnee koo xam ne dinañ gërëb yal na ñu génnee koo xam ne dinañ ci am yaakaar ak ngërmaande yàlla yal nañu yàlla defal loolu ah tànk yooyu ci la ñuy ci la ñuy dox moo waral mbooloo mi tànk yooyu te moom lañ bëgg moo waral wax naa la ne ñaan du mooy nga yëkkati sa loxo rek daan allahuma allahuma waaye yëngatu yii ngeen di yëngatu ñaan yàlla la bon nag ñu ngi yëngatu yëngatu bi ñaan yàlla la nañ ko yëngatu nag jëmee ko ci lépp loo xam ne daf ñuy dolli daf ñuy dolli dem dem ci tool yi bayaat ko dem ci jàtt yi seetaat ko defaraat ko bayaat ko ah jëmbat ah, ah, ah, ji ji lu nekk ah ji basaab ji sànqal ji ji loo xam ne dafay sax ndax loo loo ji rek mu delloo la ko <coughs> pourquoi bon duñ ko def nañ ko def tool lañ amagum nañ dem suñ tool yi ñu dekkal leen ah ñu bay dëgg-dëgg bu ñu ko defee dinañ gis ne barke suuf yàlla dinañu ko génneel waaye sa barke suuf yaa ngi ko fi bàyyi dem di dundal barke suuf keneen dëgg-dëgg loolu tardeel sa bopp rek la te suy suuf si bu ko laajee yàlla dina ko wax ne joxe liñ la la ah yal nañu yàlla dimbale bu baax a baax Sénégal xale moo fi gën a bëri xale moo fi gën a bëri responsabilité maanaam avenir bii ñu jëm yëpp mi ngi ci baatu jeunesse bi ah, parce que ñoom ñoo ñoom ñoo buur fi nekk jëm avenir ku nekk nag fa nga fa nga fa nga fa sa bopp boo àggee foofu ngay àgg hmm? boo fixé sa bopp ne da nga bokk ci ñi kawe ñi boo àggee lu kawe rek nga fay fekk mais boo fixé sa bopp ne man damaa ndaw ah boo àggee da ngay ndaw rek ah dara du la mën a yëkkati ah yal na yàlla may leen nag xale yi ngeen nekk xale yoo xam ne da a jëm fu kawe fu kawe lañ bëgg jëm fu kawe lañ bëgg suñu réew mi àgg fu kawe lañ bëgg di jokkalante ak àddina bi dañoo bëgg àddina bi ñu jokkalante ak moom ci nawle ak nawle te loolu lu lu lu lu mën nekk la mu ngi taxaw ci seen boolante yi nga xam ne am ngeen ko nay eh, dimbale bu baax góorgóorlu yal na yàlla dimbale leen yal na yàlla dimbale leen ci tool yi yal na yàlla dimbale leen ci liggéey yi ngeen di liggéey mais bu leen xeeb benn liggéey nangu leen ko liggéey même sérance daal def leen ko wàññëw dara am na sérance katu daal le président de la république la mujj doon am na jaaykatu euh, xaal ci mbedd yi ay ay taabale xaal la amee woon léegi mooy président wu turc waaye alors donc bon kooku kooku mooy yàlla waaye nag yow foo teg sa bopp itam yaa fa teg sa bopp ah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu allahuma salli ala sayidina muhammadin fatixi lima uliqa walxaatimi lima sabaq naasiri lxaqi bilxaq walhaadii ila siraatika almustaqim wa ala aalihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك و